lépp déggaloo nañ ko ci wet yi nga xam ne la ci ëpp def nañ ko wet yi nga xam ne am na lu des fii ak màggal li des bëriwul comme ñooñu yokk seen yitte gën a góorgóorlu ci li ñu def ba dara bañ cee yéex fii ak bi di nuyu bu baax ñi fi teew ñëpp tàmbalee ci gouverneur ak préfet ak sous-préfet ak chef de service yu bàyyi kenn ci barab yu bokk di di gërëmaat daal di muy ci taxawaayam ci liggéey bi bañ ba léegi di ko yóbbanteel ñëw ci président Macky Sall bi nga xam ne moom la fi teewal di des ci wax ji rek du gudd ndax euh, jataay bi ñu tudd évaluation mooy di natt xool lu ci ne fa mu toll. kon liñ ci mën a jàpp rek ci loo xam ne warees na ci gën a soññee mooy wàllu taataa yi moom bokk nañ ci li gën a jàpp loolu moom faw ñu yóbbantale ci ministère bi door mu gën cee góorgóor def ci yitte ndax mën naa ne mbedd yi ëpp ci dugg biir Touba kenn mënu faa jaar mooy lu mel ne mbeddum jaay Touba bi yoonu jiwa kebe yoonu mag bi jëm tu euh, jëm mbàkke itam boo xasee weesu daru ma naan foofu gis ngeen oto ni ñu tegee nga xam ne màggal gi circulation circulation boobu kenn mënu fa jaar yoonu Touba Bello itam xam ngeen ni mu demee ak yeneen yoon yi ci des yooyu kon comme réseau assainissement bi àggu fa faaw ñu def ci pexe ndax pexe bi li ministre bi sax dëgg la ndax waaye bu ñu xaaree ba màggal bi dugg te man xuñ ko ci diggante bi day gën a indi problème ndax ñun ñi fi xëy di jaar léeg-léeg mën ngaa départ fii bala ngaa génn dëkk bi am fi fan wala minute te waa dëkk bi rek a fi ne kon loolu faw moom mu gën cee def yitte faw mu gën cee def yitte ko ci soñu ndax màggal gi it day xew-xew bu rëy boo xam ne kenn waru ko woyofal wala nga négliger ko ndax euh, Serigne Touba toll loolu ci réew mi. màggal gi am dayo boobu bu dul woon ak li muy dugal ci réew mi ci koom-koom muy xayma yu wóor yoo xam ne waxuma la muy feet koo xam ne day indi personnel ci réew mi waaye njëriñ lay indi réew mi bu tolloo lépp itam nit ñi si daje rek ngir ngëm-ngëm te dëkk ci réew mi kon loolu waris na ko gën a joxaat yitte mu bañ a nekk rek réunion yoo xam ne daje rek lay doon te dara bi si juddoo ndax loolu baaxut kon ñi ñuy yebal itam war nañuy gën a bàyyi xel ci seen kilifa yeneen yóbbi ndax li ci ëpp ci ndaje yi tama seetlu ko mooy ñi ñiy teew bu ñu mën a jël benn décision daanaka boo waxee dañ danañ ko jot te ne ñu ngi diglu kon loolu loolu itam faaw ñu sóoraale ko gën ko bàyyi xel kon wàllu ndox mi itam daaw ministre bi ko yoroon defoon na ci ñeenti forage ren jii itam def nañ ñaari forage kon loolu lu baax la ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm waaye kon euh, maa ngi koy yóbbantiwaat ministère Aly Ngouille Ndiaye waxtaan naa ci moom léegi mooy li ëpp solo mooy réseau bi ndax réseau bi dafa yàqu ci biir Touba ndax am na ci yoo xam ne 1960 la fi nekkoon ba léegi ne nga xam ne li ëpp ci ndox mi day delluwaat ci suuf te ndox mi rek. xam ngeen li ci xew ndax ndegam dëkk bi du fay dox loolu moo ci indi jafe-jafe waaye forage yi fi nekk ci ñi xay ba wax ne de mën naa yor Touba ndax ci ginnaaw amoon na lu ma juróom forage yu pan waaye ñoom bi ñu ko yëgee fexe nañ ba forage yëpp gi dox fi mu toll nii benn forage panut kon wenn forage ci benn dëkk bu dëkk bu mënta am ndox kon am na lu ko indi loolu rek te yaakaar naa laaj na xalaat yu xool yoo xam ne ministre bi wax na ko ki yor jiite ma rahmati wax na ko xalaat yi nga xam ne bu ko ci defee dana doon jëriñu ñëpp ndax bu fekkee at jot ñu jën bënn ñaari الحس والسفر